ñu fàttali itamit ne daanaka kàngam la ci wàllub yoon doonoon na fi avocat laata muy doon euh, magistra moom dem si yàlla juge euh, Samba Sall euh, ngonuk tey ji lañ koy jébal boromam foofe ca sokon gamu fekk baax ca diwaanu Fatick dañ ci dikkat incha na mu gën a yaatoo leneen ci xibaar di commission euh, d'enquête parlementaire goo xamante ne dañ ko ubbi euh, commission googee nag lu ko sabab mooy saytu fitna yi fi woon euh, fii ci réew mi bokk na ci ci weeru mars gi weesu lu ëpp fukki bakkan rotoon ci googule fitna nag jëriñ gi ñu dénk wàllub forces armées janoon na nag taskatu xibaar yi dem bu démb maître Sidiki Kabane lépp lu ca aju dañ ko ca gëstu ñëpp ñoo xamante ne seen loxo laale na ca ñu fexe daal ba yoon mun a def euh, liggéeyam dañ ci teewlu xooxandong forces armées maître Sidiki Kaba yëkkati na ay kàddoom ngir rek fësal ne dinañ teg ab kuréel bu tëddee njaaxaanaay ngir rek ñu mën a saytu responsabilité yi ci jàmmaarloo yi amoon ci réew mi ci li mbirum Ousmane Sonko ak aji Sarr. gouvernement du Sénégal dina constituer commission indépendante commission d'enquête nañ fexe ci commission d'enquête yi ñu bare ñu dugg ci mu nekk opposition mu nekk société civile ñu jéem a saytu ci li nga xam ne mooy euh, jafe-jafe yi nga xam ne loolu lañ xam au début du mois de mars deux mille vingt et gannaaw bu mu loolu liggéeyu woy tàkk der yi maître Sidiki Kaba yëkkati na ay kàddoom weddi tuuma yi ñu teg seen kaw ndodd ne dafa am ñenn ñu ñu toroxal ci ñu ñu tegoon loxo. wax nañu tamit li ñu fi def force de défense et de sécurité yi war na tax Sénégal war nañ ko yóbbu ci cour pénale internationale. loolu wax rek la loolu mënul am ndax crime yi nga xam ne cour pénale internationale boobu boobule mooy ay crimes yu gën a grave ci crime yi. ci àdduna te loolu def naa ne loolu amu fii ci Sénégal dañuy tuumal force de l'ordre sénégalais yi li ma ci bëgg a wax mooy di ñoom ñi wone nañu que am nañu professionnalisme su dul loolu ah defe naa ne lu ñu am ci bilan mën na gën a bari ndaje gile nag doonoon na ab occasion ci ministre des forces armées maître Sidiki Kaba ngir rek mu dalal xelu askan wi rax ci dolli nag di xamle ne bépp nit bu amal ab doxalin bu dëppoo wut ak yoon ci manifestation yi fi amoon ci li ñeel coowu Ousmane Sonko ak aji Sarr dinañ la tekk ay daan ma ngoog euh, googu lépp euh, commission d' enquête euh, gu ñu ne dina tëddee njaxanaay bu ñu sukkandiko ci jor gi ñu dënk wàllub forces armées mooy ki ko xamle démb waaye nag ci googu googule commission la ñu desandi askan wi naka lañ ko gisee am ñu jàpp ne yegsi na ci waxtoom ndax bëgg nañoo gindeeku ca la sabab ca la sooke fitna googe ci weeru mars dañ ci teewlu reportage yu Toussaint Maurice Senghor ngir ñu mun a leeralal askanu Sénégal di jotoon a xew fii ci affaire Ousmane Sonko ministre de force armées di Sidiki Kaba daal dinañu xamal ne taxawal na benn commission bu nar a saytu l'enquête bi nag wante ci biir commission boobu nag dinañ ci fekk ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci opposition bi rawatina tamit ci société civile bi nag loole nag askan wi ñoo ngi koy rafetlu bu baax. Sidiki Kaba lu mu wax man d'accord naa ci parce que àdduna dëkk boo leen ci nekkee dara ndax xew ci yéen ñëpp da waroon booloo ñëpp muy opposition muy parti euh, au pouvoir ñu waxtaan trouver solution li nga xam ne mooy jëmee kanam dëkk bi parce que dëkk bi jàmm rek lañ ci soxla su fekkee gis nañ ci li nga xam ni ay nit yi dafa ay affaires yu bon ainsi de suite ñu sanctionné leen mu jeex. loolu de ni ma ko gisee mooy initiative bu baax la parce que instant yi opposition ak société civile euh, porte-parole askan bi lañ donc bu ñu bokkee ci commission bi. dana permettre ñu xam nu muy doxee ak euh, li siy xew lépp mais foofu li ma bëgg a wax rek mooy euh, enquête bi warul yam rek si ñuy def ñaaw ñaawteef yi parce que ñaawteef yi am na si côté civil bi mais am na ko si si force de l'ordre yi donc commission bi war na xool ñaari côté yëpp parce que tamit euh, yu bari am na yoo xam ne ay force de l'ordre wala ay assimilé mais bala kenn waxu si waajile moom jàpp na ne commission bi rek boo moytuwul du antu. aw si yaakaar. parce que nit ñi moom kenn ku nekk da ngay xool li xamante moo la arrangé du dëgg mais goo ma ne loolu ndëgam dina am santé parce que man mën naa ne waaw keneen ne keneen ne déet man ma ne waaw comprendre mooy problème bi mais du leneen adduna doole yemul doole moom boo gisee ñu ne yemul parce que nit ñi dañu war a jàppalante suturalante yërmandante mais yërmande moo fi amul comprendre ñi am doole moom chaque jour rek dañuy néewal doole ñi amul doole te loolu du adduna lii nag ñëpp ko doon xaarandi rek ginnaaw bi nga xamee ne rek askan wi seen xel dafa ëlim woon rek ci lu jotoon na xew fii ci Sénégal rawatina rek ci affaire Ousmane Sonko bi nga xam ne fukk ak ñaari nit jot nañu ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci Amnesty International ak juróom benn téeméeri nit ñi nga xam ne dañ see jëlee ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo ci Croix-Rouge International mbirum euh, góor jigéen maanaam borom ñaari tur yi du fi amee bu ñu sukkandikoo ci euh, kuréel bi ñuy duppee sàmm jikko yi euh, jot nañoo janook taskatu xibaar yi dànkaafu nañoo nguur gi ne duñu xool wala boog di seetaan benn yoon ñu ko fi jëmmal wala boog di ko fi daganal dañ ci teewlu Mamou Diaby Gassama nguurug Sénégal moo ngi ci yoon daganal ak ak yelleefu borom ñaari tuur yi li ñu mel dafa bokk ci ay mbébétam bu ñu sukkandikoo ci bànqaas bi ñu duppee ànd sàmm jikko yi pour la première fois ba Sénégal di Sénégal ba tey ñu bind góor jigéen ci suñu texte de loi réew mi mi ngi ciy dox ay jéego waaye li ci gën a metti mooy askan wi xamuñu ko te it informé leen yëguñu yëguñu borom ñaari tur yi ci réew mi Sénégal dafa am ñaari phase yoo xam ni ci la ko bëgg a liggéey benn bi mooy la phase d'institutionnalisation beneen phase bi ci des nag mooy la phase de sociabilisation. ngir bi le dogal bañ a sotti ak it voté benn loi ba nga xamante ne day criminaliser lii di homosexualité ànd sàmm jikko yi dafa daal di lancé benn pétition ba nga xamante ne sax këru diine yi kilifa yi dox ci wàllu aada ak cosaan ak yeneen kuréel jot nañu ko xaatim. waaye quant góor ak góor gu naan dañuy takkante ay jigéen ak jigéen ji takkante di def ay gay pride loolu ñun duñ ko nangu ci réew mi tey duñ ko nangu ëllëg xam ne yoon may nañu ko suñu diine may nañu ko ñu lancé pétition bi bu sénégalais yi signé massivement te kilifa diine yi signé nañ ba pare kuréel yi ma la limal aussi signé nañ ba pare bi le kuréel dafa fas yéene amal ab bës ba nga xamante ne danañ ko amal fépp fii ci Sénégal ngir wone rek ni ñoom duñ mus a nangu ñuy daganal ak ak yelleefu borom ñaari tuur yi fii ci Sénégal li ñu mel danañ ko amal niki ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai bi di ñëw. le 23 mai 2021 à partir de 10 heures ñëpp war nañ leen place de la nation mboolem département yëpp aussi. dañ fay organiser même heure bi même jour bi manifestation ànd sàmm jikko yi mbébétam moo di ne fii ci nim réew ñu woyal di sàmm yu baax yiñ fi am muy ci wàllup àndax cosaan muy ci lu ñeel wàllup diine naka lañu sax ñoom duñu musa nangu ñu salfaañe la nga xamante ne suñu maam yi jot nañ ko fi bàyyi ma ngoog euh, Mamou Diaby Gassama euh, jafe-jafe liggéeykat euh, yowoon ca ama Sénégal ba léegi ñu ngi daw ci seen koppar rawatina seen ndàmpaay toll na ci juróomi at yoo xamante ne ñu ngi ko doon xaar te dara sotteegul ëpp na ñetti milliards xamle nañu jafe-jafe yañ cay dund ak càkkutéef gi ñeel wàllu jëm ci nguur gi dañ ci teewlu aji ku na jéey liggéeykat yi ama senegaal ya woon addooti nañ lu ëpp fukki at ba nguuru Sénégal dakkalee këru tonni mbalit gile seen ndàmpaay yi ba tey matalee su ko. dëgg yàlla blocage bi yëpp foofu la nekk ndaxte moom moo doon suñu interlocuteur par le biais de Mame Matar Gueye mi nga xam ne moo yoroon ONG Jamra moom ci wàllu boppam moo ci doxoon ay tànki jàmm bay ñu amoon fa benn rencontre. boo xam ne Abdoulaye Diouf Sarr à l'époque ministre des collectivités locales et aménagement du territoire ak Amadou Ba ak présidé par le premier ministre Boun Abdallah Dionne dañu ba à l'issue ci bi ñu waxtaanee ba noppi dañu ne kon ba comme que mbir mi demee noonu te état reconnaître na dette bi incha allah ñun danoon ko def échéancier boo xam ne dañ koy top et mu amoon périodicité boo xam ne dañ ko waroon a topp vraiment rigoureusement mais malheureusement par la suite ñëpp xam nañ li fi xaw poste du premier ministre bi dañ ko mujj supprimer ba nga xam ne amatuñu woon interlocuteur waaye na comme que tey aujourd'hui le président de la république moo yor cëgaluguy gi ci wàllu mbir mbir moomu moom la ñuy interpellé interpellé directement pour mu indi saafara ci mbir mi nga xam ne parce que fukki at ak juróom wax bu ñu ci ki yor seen kàddu ñetti téeméer ak juróomu ñeenti fukki millions rek lañ leen sona fay ci ñetti milliards yi ñu leen ameel ci biir loolu nag du pression bu ñuy def waaye nag dañ koy rappelé ndaxte ndaxte promesse bi moom moo ñu ko defaloon ci durant la fermeture de son campagne électorale am à muy quoi que la SOTRAC muy SIAS di ama Sénégal dinaa leen defal un plan vraiment social. ñun ñëpp tamit ñu amoon ci yaakaar lool waaye boobu léegi pa mbir mi ne furaas li ñu teewoon a yëngatu nag moo doon plan d'urgence bi nga xam ne moo amoon ci wàllu Covid 19 bi donc nag boobaak léegi nag wax dëgg yàlla moo tax ñu sentir nécessité tey interpeller ko jëm ko lancer benn dernier kiri de détresse pour que wax dëgg yàlla mu indi saafara ci li nga xam ne moom mooy suñu mbir mi. moonte de am na ab kuréel gu ñu tegoon ci njiital premier ministre ba woon waaye ab mbetteel lañ ci jëlee. waaye boobaak léegi mbir mi tagga témbe ndaxte ci 2015 bi daal 1778 agents yi nga xam ne ñoo seq dossier bi jox nañ leen 390 millions loolu nag soo ko génnee ci 3 milliards 99 millions mën nañu ne le dixième de l' argent kon encaissé guñ ko tey jii nag dootu problème un euh, du li euh, mbir mi du problème juridique mais aujourd'hui tey dañ ko le Macky Sall le président de la République daf ko war a def tey un problème social tey mën nañ ne juróom fukki nit ak benn yoo xam ne dañoo bokkoon ci 1778 yi bokkatuñu tey ci ci ci dund gi ñoom ñëpp dem nañu barzaq te bu dul dara sax muy obligation morale boo xam ne daf ko am tey pour aujourd'hui satisfaire ces travailleurs yi nga xam ne tey ñoom ñëpp ku ci nekk daf nga ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne c'est de bons yu service bu yàgg ba léegi liggéeykat yi ama Sénégal ba woon di sàkku ñu fay leen seen ndàmpaay yi ñu ngi siy sax njiitu réew mi Macky Sall te sax fas na ñoo yéene amal ab doxu ñaxtu si aljuma ji foofee ca place de l'Obélisque ngir kilifa yi mën cee jukk ci nu mu gën a gaawee. yeneen euh, liggéeykat a ngi nii di yëngu ci wàllu napp gi yooyu le mool euh, gis ne gisatuñu seen bopp ci géejub Sénégal euh, gannaaw dogal yi nguur gi jël fab ay licence de pêche jox ko ay bateau yu baw ca bitim réew ak ji suñu wax yi jël koom-koom gi yóbbu loole nag lañu ne bu dakkul jafe-jafe yi duñu teggeeku dañ ci teew lu Njàkke Mbay jaaykat yi ci marché Soumbédioune ñu ngi woy di fësal seenuk mer ñoom ñiy yëngu ci jaayum jën di ñu xamal ne njeexitalu couvre-feu bi sax taxul marché neex. couvre-feu bi jeex na dund nañ ko ak métit macha allah métti woon na lool mais nag yàlla moo ko indi te yàlla xëy na leneen ko fi jëlee waat te yàlla ko fi yàlla jëlee sax mais ñun fi mu nekk li ñu jooy mooy ñun ñooy jabaru mool yi ñooy yaayu mool yi gisuñu lu ñu jaay gisuñu lu ñu liggéey ndax suñu doom yi la ñu yaakaar ñu dem ci géej gi di ñëw. bu ñu demee du ñu andi dara. ndaw sii di ab jaaykat di ñu xamal ni ñàkkub jën bi lenn waralu ko lu dul bato yeneen réew yi nekk ci suñu ndox yi. affaire bato yi bato yi moo tax gis nga fi mu toll nii géej gi amatul dara suñu càmm ñi sonn nañ dañuy dem géej ba ñëw duñu indi dara seen frais yi sax du génn xam nga loolu metti na. ñuy ñaan rek ñu dimbali ñu ci bato yi. teewul ñu ngi ñaan ndimbal ci nguur gi. état bi na fi chinois yi ñu bàyyi suñu géej. ñu mën fee liggéey parce que ñun amuñu duñu bureaucrate lii la ñu xam ñun lii lañu xam lii la ñu lii la ñuy liggéey géej gi amatul jën ñu wàññi gasoil bi jële fi chinois bateau chinois yi moo li mën a ñëw napp jën yu baax ñu ko daan liggéey fi nekk nii jën bu baax amatul ci géej ñàkkum jën bi bëri na ay gàllankoor loolu ci jaaykat yi nekk ca marché Soumbédioune bu ñenn ñi di joxañ baaraamu tuuma bato tubaab yi nekk ci géej gi ñeneen ñi jàpp ni loolu kenn waralu ko ku dul nguur gi mangoog eh, lu aju ci koppar ya ñu jukki kuréel gi boot eh, sëriñu daara yi foofe ca Louga ngir mun a taxawu seen natango Abdoulaye eh, Cissé daanaka lépp yemb na lañ ci doon jortu sax daanaka weesu nañ ko ngir mun ko taxawu ci dossier gañu gàll ci loosam dañ ci teewlu Omar Kayre ca Louga fédération kuréel gi ëmb sëriñ daara yi nekk ci Louga mujj nañoo dajale lu jige fukki million ak ñett mu mel ni nag seen yéene antu na ndax ñoom jàngalekatu alxuraan yi dañoo engagé wu woon ngir fay ndampaay li nga xam ne moom la seen ñooñ bii di Abdou Latif Cissé waroon a jox famille Abiboulaye Camara bi génn àdduna. satisfaction totale lan am. daara ji am na tere ju moomal boppam te ci location la nekkoon. am na yeneen njëriñ yoo xam ne ñëw na te bis bi moom moo ko indi autorité yi wala état bi saa su nekk war na bay xel daare war na bay xel tam ñooñu alquran ndax mobilisation bi bu fekkoon tey politicien la wala ñeneen mënuñu koo dajale lu dul danoo génne seen i koppar waaye mobilisation bi dañoo dajale mbooloo mu toll ni pare waaye kenn ku nekk ñëw indaale famille Abdoulatif Cissé rafetlu bu baax doxalinu jàngalekatu alxuraan yi ngir taxawu seen doom ji waaye ŋàññ nañu doxalinu ñenn ci kuréel yi xeex ngir àq ak yelleefu doomu aadama yi. particulièrement Sidi Gassama secrétaire exécutif de Amnesty International euh, fii ci Sénégal ndax mbir mi ba mu xewee lam njëkk a wax mooy ca Louga am na benn sëriñu daara bu dóor benn xale ba mu dee ku ko dégg. danga naan foofa la xale ba deewee te ab buum la ko dóor te reconnaître na ko toog na ñaari fan muy doog a faatu donc loolu c'est irresponsable de sa part waaye nag duñ bett ndax droit de l'homme yi li leen tax a jóg en réalité mooy xeex l'islam particulièrement xeex daara mais ça ne passera ñoom sëriñ daara yi nag wàcc nañ kaamil yu bari ci bis bi ngir ñaanal seen mbokk mi di Abdoulatif Cissé ak Abibulaay Camara bi nga xam ne moo génn àdduna ñu ne ñoom dañuy wëyal collecte yi ndax seen yéene fi mu ne nii moo nekk tabax daaray soxna Mbayang Cissé ji nga xam ne ba léegi mi ngi ci location Omar Kayre Louga Walfadjri mu ngoog euh, Omar Kayre ñu ngi koy jaajëfal leneen ci xibaar mu ñeel euh, weeru koor gi ñuy waajal ba tax na sénéra Euh, sàkku na ci itamit euh, télévision yi ak euh, rajo yi ñu xoolaat yañ cay jukki ci wàllu sketch rawatina tamit ci wàllu waaraate bañ a indi xaaj ak seen ak féewaloo ci askan wi naka la ko waa itamit askan wi jàngate dañ ci teewlu ki nga xamante ne mooy Serigne Cheikh Mbacke bokk ci CNRA ay kàddoom ci micro Moussa Sène képp ku bëgg sa réew war nga bëgg mag ñi fiir ci lislaam gis nga année yi Euh, télévision yi koor masaan jot euh, ni ñuy invité ci ay waxtaankat waxtaan wi day déborder waxtaan day dem ba nga xam ne nit ñi au lieu ñu dégloo ko ak xel mais xol lañ koy dégloo ndax kenn ku da ñëw ne wane mel ne sa sa sa sëriñ da koy teg muy nekk mbër euh, loolu ñun AIS naka jekk depuis ay années ngi ni ñu ci dox ngir dakkal loolu dem nañ ci seeti maanaam directeur télévision yi ak ñu yor programme yi waaye dafa mel ne taxu doon mu sotti moo tax dañ bi ñu gisee waa CNRA def communiqué boobu wax dëgg yàlla dañ cee am satisfaction bu mag loolu moo war a suñu ndaje mi tey ñu ñëw ngir leeral Sénégal yi xam leen ne euh, li li ñu waxtaan ak sénéra ak te jël ko décision bi jël waxut ne kenn du waxtaane mag ñi déedéet loolu yaakaar naa li li li nga xam ne moom lañ bëgg mu dakk wala boog ñu dimbaliñ ci xëy na du répété waat mooy ni ñuy waxtaane ci biir plateau yi nga xam ne kenn ku ne dangay ngay wax booy wax day mel ne keneen existut euh, ñu leen ñaan